برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجلفيد تيجا جخن نينام murid murid ñu bari nañ ko wax xamul ñu teg ñu bari dañ koy wax nga xamul ñu teg murid mooy koo xam ne bëggut lu mooy yàlla murid mooy koo xam ne bëggut lu mooy yàlla te la budda foog mu am yàlla te la budda kooku foog mu am yàlla ma ne dogu na ci ne moom foog mu am yàlla bàyyi ne mu ne dogu na ci ne moom foog mu am yàlla mu jóg di wuti yàlla mu jóg nag di wuti yàlla bu ko yàlla agalee foofu rek di dem di wuti fay fekk kii muy wuti gën koo jege faamu di wuti su àggee foofu dafay du jóg di wuti. kon du jóg sax sax di wuti. day fekk li muy wuti gën koo jege mu di ko wuti. day fekk li muy wuti gën koo jege. mu di ko wuti. mu di ko wuti nag. ñu bari ñu bari lu bari ñàkk sëriñ bu mat ñàkk sëriñ bu mat bu leen mën a àggale ci yàlla bu leen mën a àggale ci yàlla moo leen tere àgg ci yàlla moo leen tere àgg ci yàlla bëgg nañ yàlla ndax ñoom bëgg nañ yàlla bu ñu gisoon sëriñ bu mat bu ñu gisoon sëriñ bu mat foog ñu jàpp ci moom ndax ñu àgg ci yàlla foog ñu jàpp ci moom ndax ñu àgg ci yàlla xam nañ ne yàlla am nay wàll yi xam nañ ne it yàlla am nay wàll yi waaye anañ waaye nag anañ nga ne ko sëriñ Aliou nga ne ko sëriñ Aliou ah, nga ne ko sëriñ Aliou ñëpp Serigne Mbaye mu ne déedéet. nga ne Serigne Mbaye mu ne déedéet. Cheikh Omar mu ne déedéet. nga ne Cheikh Omar mu ne déedéet. nga ne ko Cheikh ña nga ko Taïba mu ne déedéet. nga ne Cheikh ña nga ko Taïba ña nga mu ne mukk déedéet. Ibrahima Niass sax mu ne déedéet. Mbaye sax bu yeboo mu ne déedéet. waaw kañ lay am Serigne bi. kooku nag kon moom kañ lay mën a am Serigne ba fàtte bu ko mën a xàggalee. dana dana am lay wóor kat ci ne ñooñu ñoom duñ wàllu yu mat. te dana am layu yëpp yëpp nga ñooñu duñ wàllu yu mat. waaw kooku moom du àgg ci yàlla moom. kooku moom du àgg ci yàlla moom. ki nga xam ne dogu na ci ne. ki nga xam nag ne moom dogu na ci. moom fokk mu jéem a jëriñu. ne moom fokk dana jéem a jëriñu. fokk mu wut yàlla. fokk mu wut yàlla. tey wax mën naa jàpp ci kii sax bu dul moom sax. fay wax ne man daal naa jàpp ci kii rek di leen du moom sax. day daal di fekk rek muy moom. day daal di fekk booba rek muy moom. ndax yàlla gën a jege ñu di ko wuti. ndax yàlla gën a jege ñu di ko wuti. te wax na ne mooy kii ku loru jëm ci moom. te wax nga ne mooy wuyu képp ku loru jëm ci moom. koo xam ne sëriñ jafe na ko daal. koo xam ne sëriñ jafe na ko daal. bëggam yàlla dafa des rek dafa des. bëggam yàlla moo des. waaye bu bëggam yàlla rek. waaye bu bëgg yàlla matee. te fokk mu xam yàlla. te fokk mu xam yàlla. day daal di day daal di gis sëriñ bu mat bi gën koo jege mu gis mu di ko wut. dafay daal di gis sëriñ bu mat bi gën koo jege mu di ko wut. su fekkee bëgg yàlla am des na nag. su fekkee nag bëgg yàlla am dafa des. lu mandargaay sëriñ bi gis. lu eh, mandargaay sëriñ bu mat bi seen seen. rek moom du ko gis. moom du ko gis moom. sëriñ wax dëgg yàlla tamit. taalibe. taalibe nag. mooy ku bëgg yàlla. moo di ku bëgg yàlla. seet ku ko gën a jege yàlla. seet ku ko gën a jege yàlla. mu ànd ak moom. mu àndoon moom. ndax mu xëcc ko ba jegeel ko yàlla. ndax mu waaye sëriñ boo xam ne daf maa dara boolewu leen lu moom a neex rek ba ànd moom. kooku buur la booy dagu rek. loolu day buur la dagu. ok da dara ci yàlla. waaye seetal koo xam ne. na nga seet koo xam ne. waxam daf lay fàttali yàlla. bu mu fàttali yàlla. lay fàttali yàlla. nga àndoon moom bon nga jege yàlla. nga àndoon moom ci woowu boobu kon nga jege yàlla. budul loolu du sëriñ da ngay dagu. budul loolu du sëriñ da ngay dagu. ñu gën a bari daal dëgg-dëgg dag lañ a bari daal dëgg-dëgg ay dag lañu duñ taalu sëriñ bari itam buur lañu wala yàlla lañ sax. sëriñ yu bari buur lañ wala sax yàlla lañu. du du duñ sëriñ. duñ sëriñ. yal nañu yàlla musal ci loolu. yal nañu yàlla melo yaare. bu leen def seen bopp yi dof yi bu leen def seen bopp it xam ne ku jot tur na nax. man de lii ma rek laa leen mën a jëriñ. bàyyi mu ne moom day lii mu ñuy tegtal loolu la ñu mën a jëriñ. naxut ñu nag. te moom lay defit pour sama bopp. te nag su ma leen ko tegtalee rek naxuma leen. kon kat bu ko tegtalee moom wàcc na yéen a ci def nag topp mbaa rek. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan